papa Amadou mu ngi ci buntu kay Deadpool de nga ni lan yow xajal ma kii Amadou yaa ha tey eh taxaw le amadu dóoruma la kaay tonni ko sama buntukan kër ngay day yow tey soo duggoon si taatu gaynde sax ma waa alaaji suluxu maa la woolu woon de ngir li jëndi sa problème sa doomu nday xaali ak doomam bi waaye comme ñëwul moom mën nañoo tàmbali eh chef de quartier bul ma waxati sa doomu nday de xaali nekkatul sama doomu nday doomam moo day sama buntu kër alaaji suluxu jéggal la puubu xale bopp galde bu la tegaloon étage ma tegal sama buntu kër nga xam ne lépp dëgg la waa baax na du puub yi tonne nañ ko ba pare wala tonne guñ ko. puub yi maa fay sama xaalis ñu tonnel ma ko. alaaji sulu ay puub yi xale lu ñuy jaral fay xaalis ñu koy tonne xanaa amoo peel sa kër. yow chef de quartier wax naa la loolu du ay puubu xale. service d'hygiène laa woo ak oto manque douze ñu tonnel ma ko. waa léegi loolu kay ba léegi du problème. woowal xaalis sa doomu ndey mu delloo la xaalis bi nga fay service d'hygiène pour ñu tonni puub bi waxuma loolu yow chef de amul lu lay xeeñ. ahan kay wax nga dëgg de man dafa mel ni oto mangu douze mooy nekk di mangu benn kër ay puuba may xeeñ. wala sa foosu kër gi bougé en tout na de. eh chef de quartier amal mi puub sa buntu kër. ay puub puub.